والسلام على عين الرحمة الربانية الياقوتة المتحققة مركز الفهوم والمعاني سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا شيخ الشيوخ قطب الأقطاب تاج العارفين مولانا شيخنا التيجاني شريف رضي الله عنه وارضاه وبعد ذلك إخواني في الله ألقي إليكم التهية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu bokk yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin moom mi nga xam ne lu xew moo ko xewal moo maye kàttan képp ku toog ci tànt bi ba ñu mun a jàkkaarloo ak yéen kun kooku yeeyoon a cant waaye ñu ngi sant bu baax yonenteem bu tedd ba salawaatullahi wa salaamuhu alayhi di julli ci moom te di ñaan yàlla yàlla bu mu di ñu taas ci barkeem ba waaye ñu ngi ñaanal suñu sëriñu xaqiqa Maulana Cheikhuna Tijaani yàlla yokk ngërmandeem ak mboolem ñu aju ci moom waaye ak mboolem jullit ginnaaw loolu ñu ngi leen di nuyu nuyu boo xam ne ñu ñëpp ñoo ko bokk te moy jàmm yalla nek ci yeen nek ci bolem julit waye ñu ngi sant yalla bu baax di nuyu sunu sëriñ Cheikh Ahmad Bamba ñang sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di ñaan yalla subhanahu wa taala yalla yalla fekk sa dëgg-dëgg li ñu lokk ci yow ci mbégte mënuñ koo wax ci micro bi waaye alhamdulilah moom kay ñaaneel ma sax yàlla mën a wax ko moom mu ngi toog waaye alhamdulilah amin sëriñ bi ñu ngi lay yàlla bu baax te di bég lool di kontaan waaye di ñaanal xale yii ndeysaan yàlla yàlla def seen dënn yi alquran dëgg dëgg alquran ni ngeen ko jàngee de noonu lañ ko doon jàngee waaw waaw alhamdulilahi rabbil alamin nii la wàcce woon ci rasulullahi salawatullahi wa salaamu alayhi koy def yàlla yàlla gën la dëgëral aleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi mbooleem koo xam ne yaa ngi ci jotaay bi mu mel ni sunu bàyyi magee sekk moo yegg si ni ñu ngi koy daral jàmm di ñaan yàlla mu yokk wéram ñu ngi nuyu chef de bi nga xam ne moo nekk ci koñ bi ko ñaanal jàmm ak sutura ak mboolem ñu aju ci moom dafa mel ni nag dafa temps bi dafa xaw a dem ba pare kon kàddu waa daara ji dañ koy jël rek teg ko ci loxo imam Ndiogu suñu soppe suñu xarit fan yi daal alhamdu mu jàllaleen ñu ko ak suñu soppe bii di Serigne Maguette ñoom ñaar yu bu ko joxee dana mat ci mboolem waa daara ji damay bañ ñu jàpp ne ab sëriñ moo ñëw pour def conférence waaye man taalu bi laa ci biir daara ji benn taalu bi rek la ci biir daara ji sëriñam jàngal ko ne ko bés dana ñëw nga ñëw tëri si may ñëw di tëri si pour mu déglu ko xaal boobu laa fi ñëwee waaye ñëwee wuñ fi nag ngir xaalu borom xam-xam xalaatuñ toog ci kanam sëñ Bamba eh, toogee fa toogaayu borom xam-xam ndax moom mooy jëmu xam-xam waaye daara ji barab bii ñu toog euh, boroom xam-xam bu fi toog da nga xalaataan la wax bu baax ndax ay jëmu xam-xam rek fi ne waaye ay jëmmu leer rek a fi ne kon fa xam alhamdu ñu ngi sant yàlla bañ ñu tànnee ñu war a ñëw tëri ci kanam sëriñ bi ngeen ñaanal yàlla sunu borom ba liñ bëgg a wax mu dem ci xolu jaam yi yal na ko yàlla yeggali waaye lépp loo xam ne narul jëriñ yal na yàlla téye làmmiñ bi ba duñ ko wax waaye maa ngi nii suma goro bi xam ne moom may soxna alhamdulilahi rabbil alamin suñu bàyyi si yal na fi gën a yàgg téwér di jaay Sidi Karim Serigne Maodo ñu ngi leen nii bu baax wax naa la ne sa inal manaay la moom li may def kéemaan yàlla yàlla defal la jàmm fa lillahi alhamdu tabaarakallah li ngay tàgg neex na lool mbokk yi sëriñ bi daf ñoo sant waaye mboolem koo xam ne niiwuma la rek nga xam ne taam moo xaw kii rek waaye xol bi niiw na ñëpp sëriñ bi daf ñoo sant ñu fàttalanteeg mbokk yi ci nit ak nite waaye ci lu tax nit ñi daw dem ci àdduna bàyyi yàlla waaye ak xew-xewi jamono yii xew ñiy woote te fekk nañuy woote du noona ba pare ñuy sànk nit ñi sànk te bu bëri googu seen sëriñ bi sëriñ bi ko doy waar la ndeysaan fa lillahi alhamdu loolu lu jar a waxtaane la ndax alhamdulilah mu ngi doy waar jamono toll nañ foo xam ne ñëpp du mooy nañu yàlla waaye fan lañ jëm ci àdduna fan lañ jëm ci seytaane topp seytaane rek waaye topp àdduna rek waaye topp seen bakkan mooy seen i bànneex ba mu tere leen topp yàlla waaye ba mu tere leen topp sayyiduna muhammad salawaatullahi alayhi waaye ba mu tere leen topp mag ñu baax ña waaye dinaa la wax seytaane moom ngay topp topp ko ni mu ñàkkee solo ak lan la lay jural ëllëg waaye dinaa la wax adduna bi nga topp lan la la war a jural waaye dinaa la wax dëdd bi nga dëddu alquraanul karim dëddu ko yàlla dëddu yi lan la la war a jural yow xam naa bu ko temps bi mayee allah mel na ni dama waroon jaar yoonu suuf bi waaye dama jaar abiyaas ndax alhamdulilahi rabbil alamin daa mel ni temps bi ñun dama mbokk yi ñu yëg ne jullit wala nit njaay mooy kan mooy ki nga xam ne moom lépp lu ko yàlla digal daf cay ne kooku mooy nit njaay waaye kan moo dul nit mooy ki nga xam ne yàlla daf koy digal ba pare bàyyi fa ndig la yàlla topp ndig la seytaane kooku du nit mbokk yi te bu ñu xoolee ci jamono loolu moo fi nekk fees fi del bari fi lool yàlla sunu borom kenn ku nekk réeroo woone yàlla sunu borom moo la bind te réeroo woone lim la sant mooy nga jaamu ko wa ma xalaqtul insa wal jinna illa liya'buduni man bindu ma nit ak jinne dara boo ñu jaamu kon yow xam nga ne yàlla daf la bind pour nga jaamu ko waaye ni koy jaamoo dafa am num la wax nga jaamu ko waye li ëpp ci ñun dañuy top seen bakkan ak seen bëgg-bëgg ñu xol ba xam ndax loolu dina am njëriñ wala déet foog naa ne amul njëriñ bi ci njëkk mooy alquran mbokk yi ñu yëg ne kenn mënul nekk jullit te fekk alquran nekkul ci sa biir dënd bi munta ne waaye kenn mënul nekk julit nekk nit ñaay te fekk yow bëggoo alquran wala bëggoo alquran quran lolu mënta ne waye li mu ne moy da ngay bëgg am Qur'an. waaleykum salaam iya, wa ci def nga ñoo waxoon ne. ubdu aliman aw mutaalliman aw muhibban aw mustamian waaye wala takun al xaamis fa tuulak. bu la nee bu la wuré ne yow ya, da borom xam-xam. kër nga dem jang waye mëno jang bu la bëggal ki jang waaye déglu ko waaye bu lekk juróomeel bi boo ko lekkee da nga xalam mooy ki nga xam ne jàngul alquran bëggul waa alquran duy déglu waa alquran te loolu dafa bëri ci jamono te xamuloo ne solution bi mën a defar àdduna mooy alquran xam nga lu tax adduna nit ñun ñëpp ñu jaaxle réew moo dem ñu ngay jàmbat lenn rek lañ bàyyi te mooy dañoo dumóoyu alquran waaye bu ñu jëloon alquran teg ko suñ kanam moo kii solution bi alquran la alquran nee na wa man arada an dicri fa inna lahu maishatan danka wa naxshuruhu yawma alqiyamati ama qala rabbi lima xashartani ama wa qad kuntu basira qala kadalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadalika alyawma tunsa mbokk yi alquran nee na nee na képp koo xam ne dangay du mooyu alquran wan ko ginnaaw nee na dund bu xet ci ngay dëkk xëpp leen bëti ñu xool rek ci dund bu xat rek lañ ne dañoo soppee soppi ba mënatuñoo soppi borom xam-xam bu nekk woo nañ ko xalaat bu nekk jël nañ ko waaye ba tey mënuñoo am solution خلاط جت ميجون خلاط ويا الله سبحانه وتعالى موميجون خلاطي خلاط من يوري جل وين أنا كوفي تك خلاط ويا الله سو بابا يودن بكو خات غي أم وين بكو نكر غي أم لولا شو كي جمانو نيان لين جيرو دفلين نانجو دفلين نانجو لبو من نجا ورجل تدار أموي من جل القرآن بوا خير ملف بترين يبا نيان بقول كده في ركسون شو بيعمل waaye yow jullit góor góor góorgóorlu yow doonte sa njiit defu ko waaye yow yëgal ne yow jullit nga yow booy dem yow al qiyaam kenn yaa fay dem te yow la yàlla di waxal fexeel ba jël alquran def ko ci sa kanam def ko ci sa biir xol bii ndax nag ëllëg yow al qiyaam ñun kenn duñu laaj seen président nangam ak nangam déedéet وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى نيت كوليك نغا ديف رك نيا واي لاغا ديف رك ني غيس تي كانام يالا واي لاغا ديف رك ني فيك تي كانام يالا سبحانه وتعالى كون نيلا يو مي ديما ديغلو فخيل باجيل القران تيكو سي كانام واي فخيل باجيل القران lépp lu la réer nga laaj ko alquran roy ko ci alquran nga ne ma jànguma ma ne la fexeel ba takkoo ak ñi nga xam ne waa daara leen di jàng loolu alquran wax alquran dafa ne wasbir nafsaka maa alladina yadcuuna rabbahum bilgadaati walashi yuriduuna wajhahu waaye wala tacdu caynaaka canhum turidu zinata alxayaat addunia alquran mu ne yonent bi salawaatullahi alayhi la ko wax waaye damay faral di wax ne alquran bu fekkee ñun nettali rek lañ ci am waaye mënuñ ko dégg ci sunu biir kon jarul ñu koy jàng alquran yow lay waxal daa démb la wàcc waaye umumiya la du xusuusiya alquran ba suba ñëwagul sax alquran lañ cay wax te buñ buñ ko tombee lamuy wax ak loola day mengo waye fi ñu toll alquran di wax ak ñun alquran ñu lañ koy déggé yalla né yow jambi néna fexel ba nga tak sa bakkan bi ray ko waye ànd ak kat yalla bi nga xam mom say wu nek mu ngi jamu yalla suba ak ngor ngir lan ngir diko yalla digal bu nek ci yow fexel nga takko ak ko nga bu fekkee jàngoo alquran boo ko defee lu mu am nga am ko mbokk yi loolu mooy nit nit day topp ndigal yàlla subhanahu wa taala yàlla yàlla mooy kattan ba ñu mun ko topp dëddu gi ñu dëddu alquran daf ñuy jural xat-xatu aduna waaye daf ñuy jural dumay alaxira alquran boo ko dëddoo yàlla daf lay duma fii ci aduna ci ay xat-xat واي الله خلاك فلان دومان تدو ولا سبارة نعوذ بالله القرآن ينا وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون نانا ين ينا خمني ين دنينا ويد بي آية يلي واي بي نيوم القيام أموت نانا قلت يوم القيام تبير مغلين تتاو فرن يدنك نعوذ بالله waye mu ne yow li di ma déglu sa dom wala sa alal bu mu la tere mukk nga top li yàlla wax nanu ko xol nak la tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah wa man yafal dalik fa ulaika humul xaasiruun mbokk yi alquran nee na bëgg wala bëgg alal bu mu tax mukk ba ndig yàlla jot subhanahu wa taala te fekk defuñu loo mën a jàpp ci àdduna bu ndig yàlla jotee bàyyi loolee da nga dem def ndig yàlla bi nee boo deful loolu nga topp doom ju neex wala topp alal ju bëri maanaam ba bay ndig yàlla mu ne yow yaay ci perte ci kanam yàlla subhanahu wa taala hee hee perte baawul la gay Hmm? liggéey ba weer dee nga war a fayee ñu ne compte bi amul xaalis xanaa beneen weer te sa kër yaakaar na doy na war hmm? waaye yamal ka am na amul sax xanaa beneen weer da ngay ñëw nag ñu ne compte bi dafa fi dara foofu laay ko mën xaalis lépp a perte lépp zéro la laa ilaha illallah hmm? compte bu perte yomal xiyaam borom fan la jëm kon nañu jël alquran def ko muy suñu lépp maas ibn jabal defal ne dama musa a ak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mané ne ko yaronte bi dama bëgg nga waxtaanal ma benn waxtaan wo xamné ne man dina ci mëna jëriñu mu ne yaronte bi ne ko bu fekkee ne bëgg ngaa dund dund ku texe texe tey texe suba waaye bëgg ngaa dee deewu koo xam ne dafa shahid ci yoonu yàlla waaye bëgg nga am mucc ëllëg yawmal qiyaam waaye bëgg nga am mucc ak bu sedd guy keroog ba naaj bi di tàng ba yuur di bax mu ne boo ko bëggee am mu ne ko am mu ne ko fa adimu qiraat al quraan yi mu ne dee leen sax al quraan mbooleem koo xam ne bëgg naa mucc ci ma wax yonent bi nee na boo jàng al quraan da nga ci yooyu mu ne mune fa innahu kalamur rahmani mune alquran du waxu nit mune alquran waxu yalla allah subhanahu jalla wa ala waye alquran hisnun min ash-shaytan moy neeg la bo xamne bo ci duggé raw nga shaytané mbokk yi néegu alquran ku ci duggu raw nga shaytané hmm ñe ko lañ koy jang té mune ne yawmal qiyam mune alquran buñ ko tegee ci balance fay diis lol buñ jegee sa jëf ji bon fék yow nga nékkon jànkate alquran alquran moy daane fa amma man thaqulat mawaadinuhu fa huwa fi ishatin raadiya waaw moy mooy aljanna nga jëm képp ko xamné sa place bu baax mo baax dina yow yaa ci dund buñu gëreum té moy yamal qiyam euh té moy aljanna yàlla ñu fiyal duggal dugal afdalu ibadati ummati di gën ci jaamu yalla suma xéet mu yépp li ci gën ci ñu jaamu yalla moy alquranul karim jàng alquran ñun nak xam ngeen ni def alquran dañ du moy man dama wax moy dumóoyu mais dañ koo gis ngeen xol leen barab yi ñu jàngee alquranul karim xol leen barab yi ñu jàngee alquranul karim nam mel nam rappé rappee mbokk yi ndax ñun no lañ tëdd lañ wara téré alquranul karim ci neeg yu rap neeg yu yeggut nga gis ku nekk sa kanam tabaxal étage am ci ñaar ba ñett ba ñent te mënul tabax daara ji allahu akbar mbokk yi ndax ñun suñu téere bu tedd bii ndax ñun nii lañ ko war a teralee sàkket boo romb ñu ne alquran lañ fay jàng néeg bu yeggul boo romb ñu ne alquran lañ fay jàng waaye doo romb étage mukk sa xel dañ ne alquran lañ fay jàng laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah yàlla ñu yàlla yërëm dana waar waaye ana buur lu mu dimbalee alquranul karim ana waaye jël na beneen njàng teg ci kaw alquranul karim mbokk yi ndax ñun war na ndax nit njaay koo xam ne am na xel ndax war ngaa jël beneen njàng teg ko ci kaw alquranul karim bu ñu waxee ñu ne jamono moo ko laaj ah kon jamono moo laaj weddi yàlla jamono moo laaj ñu bàyyi alquran kon nga dañ weddi yàlla alquran lañ moo ko gën a méngoo jamono gàtt gi man gën a métti suma biir xol mooy nañ moderne daara loolu wallaahi boo ko waxee dafa mel ni bal nga may dóor ci biir xol alquran loo ci moderne yow alquran moo leen nañ jox xaq daara seen xaq bi ñu téye ba ngeen koo jox nañ leen ko jox waaw loolu mooy kalima boo xam ne baat bu baax bi la waaye alquran luñ ci moderne waaye kii nekk ci néeg bu yeggut da nga téye xaqam yépp bañ ko ko jox waaye keneen ki nga xam ne moom am na ndey moom léppam da nga ko koy jox koñ booy lotise dañ nga fay bàyyi école kan moo gis ci yéen koñ bu ñuy lotise bàyyi fa daara hmm? amul doo ko gis mukk waaye koñ bu ñuy lotise bàyyi fa école école nasaraan allahu akbar mu ndax nasaraan lañ wàccee ci yonent bi salawaatullahi alayhi mu nag lii ànd naag nite déedéet ànd ak nite ah xoolal ñun ki nga xam ne góorgóorlu la ba góorgóorlu xam nga lu muy wax ah xale yi koy jàmbaar ñoom saa yu wàccee école dañuy dem daara ja waaye yaa ñàkk ful la lu du tax waxoon ne bu ñu wàccee daara dañu leen école loolu moo jaadu woon saa wu ñu wàccee daara dañu leen école ndax école am na la yem te alquran dafay teral fii teral na fële iqraul qurana فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه جانجلين القرآن دفلي ترى في ترى لفلي مكي القرآن لدي متنك ويرنك وخلنا صلوات الله وسلام عليه نحن الإسلام دفت كما سبتم رنك ويرنا دلكم نمت رنك ون ويفطوبا للغرباء نمت أكبر نمت بكت غرباء يوين غرباء كي رولي نكي mayuñ la jàmm joxuñ la dara dimbalewuñ la ba pare duñ la bàyyi ak sa liberté jàpp ci tëj rek ci biir kaso yi. cheet cheet cheet cheet mbokk yi alquran boobu dañ ko waroon jàpp mu nekk suñu benn jumtuwaay boo xam ne daf ñu defaral suñu biir xol yi waaye daf ñu defal adduna defaraat ñu àllaaxira yonent nee na xol day màgget daay dootu mun dara waaye lan moo koy defaraat ba mu bees mu ne mooy jàng alquran ak fàttali ko dee. tt të bokki alquran la ne nañu jàngi alquran te xam ne lu mun a xew ak luñ mën a def taxul mukk alquran mu baaxoon démb tey la gën a baax hmm? damaa déglu benn mbokk ci rajo wallaahi te sénégalais la de bokk sax ci kilifay nguur gi eh, ma dégg muy wax ne moom ñu ngi jàll Dakar mu ne lan moo tax alquran duñ koy àtteewoo parce que alquran àtte bi dafa yàgg léegi méngoo wut ak jamono parce que alors que il faut nga indi yeneen yu bes seet seet seet xoolal kat bi yéeféer boobu te kooku nee na jullit la nee na am na sëriñ gëm nee na gëm na yàlla nee na gëm na yonent bi xam nga loolu wax rek la hmm? yàlla ne wa an ihkum bima anzala allah yàlla ne wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul kafirun fa fa ulaa'ika humul xaasiruun ñett yëpp am hmm? ñun lii nekk lii nekk xamuñ ko de yàlla nee na ku atteewul alquran yaay ci perte yàlla nee na yow jullit bu dee gëm nga yàlla booy atteewoo na nga atteewoo alquranul karim ñun lu ñu atteewoo ay xalaatu tubaab yu ñu bind boole ko dajale ko moom lañ gën a gëm ci alquran mbokk yi tubaab bi kan moo ko jox xel kan kan ko bind allahu subhanahu wa taala mu ndax moom xelam mën naa rek ba jéggi xelu yàlla mënta ne waaye yàq nañ suñu xel yi ba ñun sax dongo daal sax léegi-léeg tabaarakallah ah chet chet chet kon nañu delluwaat nit yi bàyyi xel yàlla subhanahu wa taala te xam ne adduna bii dañ fi jaar dem rek de romb rek la te xam ne seytaane dafa bari doole القرآن دي واخني خنا دوما لين خمال كيغا خامني مو غينا بارتي تي يين تي موم ياكار ناني مو غاي ديف اك ماخ ني نوكو انكاي واخ نيكو من اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا bokki alquran nee na xanaa duma leen xamal ñi gën a perte ci yéen te ñoom yaakaar nañ ñu ngi def lu baax ñu ne ko ankay mu ne mooy ñi weddi alquranul karim mu ne ñi weddi alquran ñoo gën a perte waaye ñoom ñu yaakaar ne ñu defal yàlla subhanahu wa taala xamoo ne boo doon financé ay milliards te teguwul ci kaw ngëm yàlla haba am manfuura amul njëriñ kon pour mu am njëriñ dañ koy teg ci nite mooy da nga koy teg ci li nga yàlla sant ko waaye boo doon xëy chaque nga joxe ay milliards te fekk yow gëmoo yàlla zéro la kon yàlla buñ ci bokk ñun waaye yàlla nañ bokk ci xam ne ñoom dañuy am nañ lu baax dem fekk fa lu baax te kooku mooy kan mooy di gëm alquranul karim waaye mooy di topp li yàlla wax subhanahu wa taala zahara alfasadu fi lbarri walbahr lu tax bi ma ay aydi mu ne yëg leen ne fii mbooleem lu ngeen di gis muy xew ci ñun jafe-jafe yi dund ko cher bi lépp mu ne ñun ñoo ko liggéey ñun ñoo ko fam hmm? bu kenn tooñ Macky Sall bu kenn tooñ keneen bu kenn tooñ keneen xam nga kan la ñun la ñun alxuraan na ko wax nee na géej gi boo nappatee léegi doo xam kaaya rek waaye jiiri jaari nii boo béyee mbéy mi du baax ñu ne ko lu xew mu ne bi maa kasabat ay dinaas nit ñee ko liggéey hmm? ci mooy yàlla gi ñuy mooy yàlla moom la yàlla di mosal li yudiqahum baada alladi amilu ngir yàlla mosal leen lenn ci bàkkaar yi nga xam ne ngeen ko mu mosal leen ko fii yemal xiyaam doog a ñëw lu doy waar hmm? kon diggante yow dund bu cher bi ndikete yow réew yu am jafe-jafe yi ndike du kenn ñun rekk la waaye bu ñu màngoo woon topp li yàlla wax rek mu ne dund bi wàcc lépp yomb walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-sama mu ne ñun buñ bu ñu gëmoon rek yàlla tijji buntu xéwal yi tijji buntu wërsëg yi jaratul ñaan lu ji fenn gëmal yàlla rek subhanahu jalla wa ala waaye defal li yàlla wax rek lépp ñëw waaye dinaa la demal ci seytaane mi nga ci àdduna mi nga xam ne yow moom nga topp rek di daw yonent bi nee na moytul ma àdduna ñu ne ko ndax lan mu ne as xaramin haaruta wa maaruut mu ne àdduna moo dàq njabar haaruut ak maaruut ndax yow bu dee sa xel maa ngi ànd ak yow ndax dañoo topp àdduna bàyyi yàlla déedéet waaye wallaahi ndeysaan looloo xew ci jamono bu ñu waxoon ne bu subaa ci timis jàkka ji ku fi julli ci am 5000 kenn du ko ci jàkka ji hmm? kenn du ko ci jàkka ji waaye tabaarakallaahu buñ nee ku julli yàlla fay la ñaari sàppe am wala benn sàppe hmm? ndax lan boo waxee nga man de aw ma jot son patron sangam lu ma woo diwa ma woo nangam ak nangam ndax àdduna ba yàlla wootee nga bañ xanaa xam loo ne léegi nga jógee fii adduna bii kër bu jege la jeex na ba pare lépp fekk na mu jaral la ngay jëm ngay jaay sa àllaaxira nañ ci bàyyi xel bu baax a baax yonent bi salawaatullaahi alayhi dafa mos a génn fekk sahaaba yaa yi toog mu ne waaw yéen kan moo bëgg ci yéen gumbo gim gumbo yàlla génnee ko te def ko muy gis xam nga képp koo xam ne teguwoo ci ci li yàlla bëgg rek da ngaa gumbo yooyu yonent bi ne kan moo bëgg gumbo googu deñ te yàlla defal ko muy gis mu ne dama ne képp koo xam ne ci yéen daal topp àdduna topp ay mébétam ci àdduna yàlla day gumbaloo xolam kenn ni mu bëggee àdduna ba du gis dëkk waaye ku dëddu àdduna gàttal sa mébét nee na yàlla day dalay jox xam-xam boo xam ne jàngoo waaye dalay jox njub boo xam ne sàkkuwoo mu ne nag yéeg leen ne yéen seen gannaaw dina am nit ñu ñëw foofee léegi balaa ngaa jotati nguur il faut que reyante am nguur doo ko am foog naa yéeg seen ci de mu ne dana am jamono mi ñëw mu ne nguur pour nga jot ko mu ne il faut que reyante am te jabbur am maanaam nga doo ko jot nguur ndax lan ndax ñu topp seen bànneexu bakkan rek ndax dootuñ ko teg ci dëgg waaye buñ ko tegee ci dëgg xeex du am dara du am waaye bu fekkee ne teguñ ko ci dëgg nag su waa naaudu billah nee na ci reyante rek day am xool seen bët yi rek hmm? daa iman ñu ngi reyante ngir lan te àdduna rek a tax kenn reyantewul ngir yàlla kenn reyantewul ngir naa samp daara waaye kenn reyantewul ngir na alquran jóg waaye reyante rek ngir àdduna reyante ngir nañ ma fal rente ngir naa nekk président rente ngir naa nekk ministre rente ngir naa nekk nangam jaral na la nga rey sa mbokku jullit adduna yéen ci waxoon na ko de sallallahu alayhi wa sallam nee jamono ñu ñëw noo lee lay mel yegg ci nañ ci nee na buñ fa yeggee nee na doo doo topp dëgg waaye ci topp neen rek ngay topp seet na li ma wax rek ñii woote ay caaxaan sen borom mi kenn xamul ni kenn xamul ni tol waye bo boo fi wootee dëgg kéemaanu yàlla la. gis nga tànt bi bu ñu waxoon ne tey benn benn du musique mo fi ñëw fi ba tali ba do fi tek hmm ndeysaan allahu akbar waye tay ñu ne yàlla la ñuy waxtane ñi yàlla defal seen xol rek ñoo tok hmm moo tax seytaane ak a bëri ay soldat ak bëri ay ay taalibe dinañ ci ñëw bu soobee yàlla. nee jamono boobu buñ fa yeggee képp koo xam ne mën naa moom boppam ba muñ defar xelam mi nee ba tënku ci li ko yàlla jox mu doyloo ko wëlis muy def lu xaraam nee moom juróom fukki yoonu siddiq lañ koy jox. siddiq xam nga kan mooy siddiq siddiq mooy maqaam boo xam ne moo sës ci yonent moo sës ci nubuwa

siddiq ku ko nekkul mënoo nekk euh, ab yonent ci maqaama siddiq a ngay jaar doo ko dugg ci buntu nubuwa ah ceet ceet yal nañu fa yàlla yéegal wallaahi ndeysaan waaye yonent waxoon na li man di ragaluma ci yéen ñàkk waaye xam nga lu may ragal ci yéen mooy ngeen dem ba àdduna neex yàlla jox leen wërsëg ngeen beew daal di commencé ñoddoo alal ji commencé reyante ndax alal mu ne loolu lay ragal ci yéen te kon bu ko defee yàlla xalak yéen waaye looloo fi ne alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir kalla sawfa taalamuuna thumma kalla sawfa taalamuun kalla law taalamuuna ilma alyaqin la tarawunna aljahim loolu gaa yogu moom fa lillahi alhamdu gisoo ko chet chet chet ah كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجهيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يلا يلا يلا أقول أنت على رك مول سهلة بيما أقول مليار بيما أقول جنود ملياردير بودي سيف بقول أنا وقدم تمام مريال لكو أنا مدخل لون لكو يلا لون رك ين في نكى بدي أيون ين ده لو يوقف تكلم يلا شيء ah yonent yi neen moom loolu rek lay ragal ci yéen wa yàlla jox leen alal ngeen di ko ñoddoo seen diggante ba tax ngeen beew commencé reyante hmm? ci jamono boobu lañ toll da ngay dégg ñu ne ko amul xaalis tey bokkoo waaye xaalis noo ko mën a amee baax na baat boobu la lay gëm noo ko mën a amee baax na waaye du noonu de dafa am lu ko yàlla waxee dafa am lu ko yàlla diglee ñu war ñu war koo defee noonu dañoo jële ci Sayyidul Xudri mu ne yonent bi dafa wax ne li ma gën a ragal ci mooy li nga xam ne yàlla daf génne ci barakaatul ard ñu ne ko lan mooy barakaatul ard ne mooy zahratu dunya taaru àdduna gis koo xam ne mën naa nekk sax ci yàlla di jullee ko woor waaye bu ko yàlla xoltee tuuti mu commencé daw jàkka ji commencé daw ay mbokk jullitam bew commencé na alim karamallahu wajha seydina alim dafa wax ne yàlla kum boole ci moom juróom benn jikko yi nee na amul fenn fu nit di jaar pour sàkku aljana te nekkul ne yow jaar nga fa waaye amul fenn fu nit di jaar pour daw safara te fekk yow daw nga fa déglu ma ma wax ne juróom benn jikko yi ñu ne ko ban ak la mu ne bi ci njëkk mooy man arafa allah wa ataahu nee na boo góorgóorloo ba xam yàlla ba pare wa ataahu mu topp ko hmm? mu ne benn jikko waaye tey ñun waxuma topp bi de yegg ci maqaam am yàlla sax lañ ñu defar la da ngay gis koo xam ne borom kër la doo ko bëggoon tërloo Fatiha mu ñàkk million bi ñu koy jox Fatiha bu set wallahi te di borom bu nekk am na ko ci àdduna ndax loolu bokk na ci nite sa àdduna fexe nga ba lijjanti ko waaye Fatiha bu baax buñ la ko bëggoon tërloo bu la joxoon million nga ñàkk ko te nga ne yow jullit nga de waaye da ngay xaar ba màgget. commencé daw ci jàkk ji dafa lakkal nit ñi nag solal nit ñi wit nga fay nekk bëgg ndam fii maa fi toog micro bi maa koy téye may noddu ma def nangam ba ba ko yàlla soxlaa ñëw woon hmm? mbokk yi nekkul ne ci mag la ñuy jaamu yàlla de yàlla ndaw la soxla ndaw waaye xaar ne damay xaar ba màgget damay xaar ba liggéey ba retraite doo commencé dem jàng ku ne kan moo leen ne yow da nga retraite kan moo ne balaa nga màgget doo faatu yow ku la ko wax. kon man arafa allah wa ataahu xam yàlla te topp ko wa arafa cheytaan fa asaahu mu ne ñaari ba mooy nga fexe ba xam cheytaan mooy ndigalam muy ñaar mu ne ñetteelu mooy wa arafa alxaq fa atbaahu mu ne fexe ba xam dëgg te fekk te fekk nga topp ko nag topp dëgg. wow na nga topp jaaxaan de nga topp dëgg xam nga dëgg waaye nga topp ko am na ku xam dëgg mais topp dëgg xam dëgg ba topp mooy ñetteel mu ne nga fexe wa arafa al batil fa atqaahu nga fexe ba xam neen wattandiku neen ba doo ko def waaye wa arafa dunia fa rafadaha fexe ba xam àdduna sànni àdduna ca gannaaw waaye wa arafa al axira fa talabaha fexe ba xam àllaaxira te sàkku àllaaxira mu ne yéey nii ku mu nekk ci yow nga ni ko defee comme nii nee na bunt bu ñuy sàkkoo aljana yow sàkk nga ko mu ne yow dee rek mooy te def aljana hmm? waaye yow tëj nga buntu safara bu fekkee juróom benn jikko yëpp nekk na ci yow tëj nga buntu safara bari waram xam la wax mu ne ku la fekk ci sa diine di ko xëccoo ak yow xëccoo ko ak moom bul nangoo kenn bàyyi diine waaye ku la fekk ci àdduna di ko xëccoo yow sànni ko diine sànni ko àdduna bàyyee ko ko waaye diine jaamu yàlla mbaax sellal nite ku xëccoo yow xëccoo ko ak moom diw fi julli bu ko nangu di ko dàqaa woor bu ko nangu moo gën a bëgg mbaax bu ko nangu moo gën a nite bu ko nangu loo dégg ci mbaax jéem koo def mbokk yi loolu mooy jullit jullit lépp lu mu dégg ci mbaax daf ko jéem a def waaye loolu mooy ko am xel Luqmaan daf doon dénk benn doomam pour àdduna nga xam àdduna ni mu ñàkkee solo mu ne ko yow yow doom mu ne ko àdduna xam nga lu mel mu ne ko ah mu ne ko àdduna géej bu xóot la géej waaye dafa xóot lool waaye ñu bëree bëri lakk nañ ci biir géej googu géeju àdduna mu ne ko waaye yow doom maa ngi lay digal utal gaal gooy dawee ci biir géeju àdduna gaal mu ne ko bàyyi lan mooy gaal gi mu ne ko taqwallaahi fexe ba ragal yàlla mu ne ragal yàlla mooy gaal gi nga xam ne moom ngay def ci biir géej gi di ko jéggee géej waaye gaal gi lan laa koy joowee waaye gaal gi client yi lan la mu ne client yi nga yëpp ci biir gaal gi mu ne ak imaanu billah gëm yàlla mooy liy fees gaal gi. cheet ceeb ceeb nga ne ko lan laay joowee gaal gi mu ne at tawakkulu ala allah wakiilu ci yàlla subhanahu jalla wa ala wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu mu ne nga fexe ba doo weeru ci kenn ku dul allahu subhanahu wa taala ci yàlla noonu mu ne doom ji boo defee lii yaakaar naa ne da nga mucc ci gaalu àdduna waaye noo ñun ñëpp la ko wax nañ def gaalu àdduna muy ragal yàlla waaye nañ def kiniyaaya muy dal gëm yàlla waaye nañ def bant bañ koy joowee muy wakkiilu ci yàlla subhanahu wa taala bu ne ku def lii yaakaar na ne yaakaar na ne yow mën ngaa mucc ci àdduna mu ne wattandikul benn borom xaw bu ñuy wax Yaxya ibn Muaz nee na adduna xam nga ni mel yow mi bëgg adduna mu ne adduna dafa mel ni bitig la boo xam ne benn magasin kan moo ko moom seytaane mu ne seytaane moom bitig bi moo fay jaay adduna mooy magasin wu seytaane mu ne yow nit wattandikul ba bul dem ci magasin bi sàcc fa dara parce que boo fa sàccee dara moom su boobaa daf lay jàpp tëj la na ma laaj waaw seytaane nan nan la muy tëjee ak kasom bi fan la ne sàcc bi mu fa sàcc dara mooy nga bàyyi li la yàlla digal dem ci la seytaane digal kon yaa ngi sàcc tëj gi la seytaane di tëj mooy daf lay gën a yombal sàcc googu bakkan bi gën koo miin mu gën a yomb mu dem ba téye nga xam dooloo fa génn nee na bi loolu mu ne wóotandikul dugg ci bitigu seytaan yi ndax loolu lay jàppe nee na loolooy àdduna cher cher cher nee na yow àdduna boo amee xel àdduna du dara yàggul yow xam nga boo demee ci kër gi nekk gan xamoo li xamoo li xew ci kër waaye bésu tey bii gan nga fi xamoo fi ak ngoon luy xew hmm? mu ne lépp loo xam ne da koo am yëgal ne dañ la koo abal abal wama almaalu wal ahluuna illa wadaa'iu wala budda yawman an turadda alwadaa'i'a mu ne yëgal ne alal jii nga amee yëgal ne doom yii nga amee ay ndénkaane lañ ci yow mu ne bés dina ñëw far force nga danga delloo ndénkaane yow ñaata nga xamoon ci milliardaire dem nañ ñaata nga xamoon ci milliardaire ñu ngi fi waaye amatuñ dara la leen yàlla dénkoon jël na ko kon yow li la yàlla dénk gaawal balaa mu koo jël mbaa dem yow mu ne fii loo fi am ndénkaane la loo am ba di ko tiitaroo yëgal ne am na ku la ko pële fuuf muy na teg mbokk yi ñu bàyyi xel àdduna ñu xam ne dara te buñ moytul mu yàqal ñu àllaaxira yonent waxoon ne ne sallallahu alayhi wa sallam nee na fexeel nga màng juróomi mbir balaa juróoma ñëw ba nga nekkee xale am doole sa doole jooju fexeel defal ci yàlla balaa màggee te ñëw ba nga amee alal mu ne sa alal jooju fexeel defal ci yàlla balaa ñàkk ñëw waaye ba nga fiixee xatagoo mu ne fexeel defal yàlla balaa xata ñëw ba nga wéree feebaroo fexeel jaamu yàlla balaa feebara ñëw waaye ba ngay dund fexeel defal yàlla balaa dee ñëw mu ne juróom kenn ku nekk war na ko bàyyi xel ndeysaan damaa fàtte woon eh, ki ñu tuddee bés bi maam Ram Seck yàlla yàlla yokku leeram fa lillahi alquran la kër gi moom ko joxoon mu jaarle ko woon ci loxo sëriñ bii sëriñ Bamba su ma xëyee ci doog a dem yal na yàlla yokk leeram ci barke alquran barke weeru koor tabaarakallaahu ku liggéeyal alquran la xaadimul quran la woon yal na ko alquran fekki bi jaahi mawlaana Muhammad mbokk yi yàlla nee na laa tattabiu xutuwaati shaytaan wa man yattabi xutuwaati shaytaan fa innahu yamuru bilfahshaai walmunkar mu ne maa leen di wax ne bu leen topp seytaane ndax seytaane kat lim leen di digal baaxul ci li muy digale mooy lu bon rek nga lay digale moom seytaane du la digal dara lu baax lu bon rek hmm? seytaane moo ñu digal ak mbon ñu nekk ci ba tax na mënatuñ ñaan yàlla mu nangu mënatuñ def dara mu nangu dëkk bi di gën a dëgër dépasse dépasse di gën a jafe lépp di gën a jafe ndax lan topp seytaane ma jox leen benn secret ku bëgg sa kër neex sa lépp neex secret bi yëpp la ñëpp ko bokk mooy dëggalal yàlla subhanahu wa taala lekkal ci nga war a neex saa wu seytaane dig lay bañal danoo ñàkk dépense mukk ci àdduna waaye sigi sàkk bi moo ah lii de yàlla bëgg ko waaye ba ne waaye rek la yàlla ma teg hmm? ah lii la bu la seetaan nga dem ak seytaan waaye gis nga boo wakkiiruwul ci yàlla allahu akbar yàlla defal la kéemaan yàlla nee na picc bayul tool picc bayul tool yi deful dara te xëy rek naaw amul fan la jëm waaye dafa def tawakkul ala allah dafa xëy ne man yaakaaruma kenn ku dul yàlla yàlla suma doom yi yaakaaruma ci kenn allahu rek yàlla ne ko maa la doy naawal mu naaw yàlla ne ko tool ngi nii wàccal bayoo bayaanoo dugub bi ñor na wàccal nga lekk ba suur mu ne ko toppal yëbbaale say doom ومن يتوكل على الله فهو حسن من يني يرتني يني بغير وكيل ان شاء الله يالا كان لن جوخ مرسل كل كو جالي بتيم امنا امنا ني بري دوم لا يالا واي وولو نكو دا يالا نا فاج كاي وولو بوكو وولو رك مو نيو واي بو سيكي ساكا مو انا عند ظن عبدي لو نيوتو رك نون شيت تبارك الله dafa am borom borom xam-xam bu ñuy wax Ibrahim ibnu Adham dañ koo jàmbat loolu waa dëkkam ñu ko dëkk bi léegi dafa ku ñaan yàlla yàlla may ko waaye ñun ñaan nañ ba sonn yàlla mënatu ñoo xew xanaa yàlla li wax mu ne ankay ko waral ñu ne ko lu ko waral mu fukki mbir yu nekk ci yéen moo waral loolee te fukki mbir yooyu àndul ak nite araftumullahu taala walam tu addu xaqu xam ngeen yàlla waaye xaq bi yàlla bi yàlla ci yéen joxu leen ko ko hmm? jàng ngeen alquran waaye du ngeen jëfandikoo alquranul karim gisoo la laa fi wax léegi koo wax mu ne man taalibe laa doomi daara laa waaye li muy àtte woo leneen lay àtte woo yéen di wax ngeen ne yéen bëgg ngeen rasulullah waaye bàyyi ngeen lépp sunna boo xam ne dafa doon doon def hmm? yéen woote ngeen ne ay noonu seytaan yi ngeen waaye nag topp ngeen seytaan yi ci lépp lu mu digle waaye dëppoo ngeen ko ci xalaatam yéen di wax ngeen ni da ngeen a bëgg dugg aljanna waaye nag jëfu leen jëf ju baax bu leen ko dugg aljanna wax ngeen ne da ngeen a bëgg safara waaye nag yéen ngi sànni seen bopp te biir safara wax ne yàlla day maye aljana waaye day jaay safara te nit ñi ñoo koy jënd Grand Théâtre benn woykatu musique moo fay woote ticket bi cent mille la cent ñaar fukki junni boo yéexee doo xam contrat bi laaj bi kenn dara gratuit la ngir yàlla boo yéexee doo gis kenn ah hmm? léegi xam nga ni loo koy déglu rek ak ngoon la fu mu lay safara li wóor na ne ak baax rek la lay yokk waaye yow soxlaa loolu dem joxe ñaar fukki junni pour tiketu safara nga jënd kooku noonu di ko woy soldaar la ci biir soldaaru seytaane yi léegi ngon gi dafa bëri ba nit sax dootu taxaw wax ne lii fa bon ndax ni mu bëree ak ni ko nit ñi di soutenir di bëree ko xoolal télé yi loo fi gis kuy wane loo xam ne àdduna la dañ ko yëkkati ba ca kaw ah ana samp yow alquran yi Sénégal kenn du leen teew kenn du leen tegtale kenn du leen invité ci plateau day mel ni dara xewut samp yow ni monde bu dëkk jàng al euh, alquran ci àdduna bi ñu ne Sénégal la dëkk Sénégal yëpp waroon dagg dem fekkee ni ko bu fekkee ay nit lañ xam ngeen ñun lan lañ fa jëloon asi coupe asi coupe coupe ñu dugal jommal àdduna ndax coow waaye xam ngeen ñun lan lañ jël ku bu alquran ci adduna bi yëpp ñoo fi dàq jàng alquran kenn yëgu kenn yëgu mbokk yi loolu loolu loolu dana waar li ñu ne Sénégal li fi nekk mooy quatre vingt quinze pour cent ah, xanaa cinq pour cent kay hmm? xam naa ne dañoo war a bàyyi quatre vingt dix yi jël seen kii ñu ne cinq pour cent rek léegi. yéen wax ngeen ne dee dëgg na waaye nag préparé wu leen pour dee waaye yéen da ngeen di soxla sikk nit ñi ba du ngeen di seen sikk yi da ngay toog rek di koy xanaa gisoo ko keroog man naa ak nangam hmm? mbokk jigéen ñi nag ndeysaan nañ ma baal waaye foofu xam naa ñoom ñoo ko fay gën a def xanaa gisoo di di keroog ci tur ba moom de moom tim tim sol moom daa xottee ko gisoo ko wala ñu da koo àbbu sax far gisoo ko léegi yow léegi yow xoolal sa bopp am na sikki yu nekk ci yow waaye doo ko xool déedéet. Hmm? fay laay alhamdu yaa ngi xool sikki jàmbur pour wax ko ci penc bi ngir daram yàqu ngir bu biram baax ngir yow nga jóg. cheet cheet cheet beneen mooy yéen de yéen a ngi lekk xiwal boo xam ne yàlla moo leen ko jox waaye sant leen yàlla da ngay lekk ba suur ne barki sëriñ bi bu dëgg de. lekk ba suur ne barki Serigne Diouf du dëgg de alhamdulilahi rabbil alamin Serigne Diouf joxolam loo lekk di yëgu ko sax nag xamul ne lekk nga sax mbokk yi du Serigne Diouf yàlla la de yàlla la du Serigne Diouf boo yëgee yàlla ci sa biir nga yëg yàlla la du Serigne bi de bàyyi xel sant leen yàlla sunu borom jaam bi fu mu toll dama war a sant waaye bu mu sant bi de. na ko sant ci ne defal na ko mbaax mu ne ko jërëjëf yaa tax ma xam yàlla jërëjëf yaa tax ma gindeeku waaye nag xéewalu yàlla mu jox la ko neen alhamdulilahi rabil alamin ndax yàlla doo yàlla dooli la la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid yàlla nee na joxee nga lekk ba suur bu subaa ma dolli la bu ma wéetee ma téye suma loxo dara doone ko yor waaye yéen ngi yéen ngi nekk mu faatu ngeen dem suul ko te yéen bu ngeen ci xalaat dara da ngeen ñëw rek kon di ngeen nekkoon mbokk yi yow mi nekk ak nit di wax moom di dund ak moom ba mu xëy ni suul ko ci biir suuf gisatoo ko déggatoo ko waxatul yégal na yow tamit fa nga jëm kon yow boo ñëwee noo war a def da ngaa war a gën a góorgóorlu léegi ñu ndekete yow man damay dem ana bàyyi dem ana maam dem na ana sayyiduna Muhammad dem na ana yu baax ya dem nañ kon damay dem kon mu war laa delloo ci nga nekk nit waaye war laa delloo si nga gën a góorgóorlu jaamu yàlla subhaanahu jalla wa ala nee na yéen loolu ngeen di yow nit yëgal ni am ñeenti noonu te noonu bu nekk da war a takk xare war xare ak moom ba daane ko

من أدنى سنورنا تيلو خلنا فلا تغرنكم الحياة الدنيا من دون دون أدنى بي بملن ور سقول نجح هم شيء والله ليسان من يقتل بمؤمن شيطاني شيطاني شيطاني الشيطان مولاي جهدها يا وخني قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس يا لما نجي مسكتيس اي شيطان بوب نغا خامني موي تخ جخال سما قلبي با ديما تاي ديف ماخ وني كوكو سنون لا واي بنين نون دي موي شيطان الانس دا ام نياري شيطان شيطان بو خامني جي بير قل لا نه واي اك شيطان بو خامني نيت داكو boobu na moo gën a garaaw parce que boobu day ñëw jël sees toog jàkkaarloo yow yaa ñàkk ful la xam nga ne lii la gàcc nii war a ko nangu hmm? sa baay nangam sa yaay nangam bu xaw a wax ci baa nga ba ko fekkoon da ngaa baale nga mu ne man sax mën naa dimbale waaye lii du fi amee koo gis mu ñëw toog ak yow di wax rek jàppal ne kenn a ngi noonu kenn la ci soldaaru seytaan yi hmm? te moom moo gën a garaw moo gën a jaaxal jaamu yàlla yi kon ki ñëw di di wax ak yow saa wu nekk ko da lay jey mu lay yëkkati wala mu lay puus ci nga def lu bon kooku seytaane la waaye ki ñëw di dina encouragé ci mbaax dina ci ñaax nit ñaay la comme yow jàpp ko nga xam ne kooku mooy sa xarit. te mbokk yi seytaane moomu. tey lii yëpp moom moo ñu ko yóbbee abu amaama albahili dafa ne ba ñu yónnee yonent bi salawaatullaahi alayhi iblis dafa ñëwal ay soldaaram yëpp boole leen soldaar yi ne ko ah iblis am na lu xew de ñu ne mu ne ah lu xew mu ne yonent yàlla muhammad salawaatullaahi alayhi yónni nañu ko mu ne ah waaw mu ne am na xeetam ñoo gën ci xeet yi xeet yu baax lañu yor mu ne waaye ndax que ay xeetam ñoom dañuy bëgg àdduna ñu ne ko ah waaw xeet yi kat dañuy bëgg àdduna mu ne ah kon garaaw man kay kon dañuy bëgg àdduna doonte jaamu ñu xërëm sax baax na ndax li ma li li ma bëgg a def danaa ko def ba ñu def ko te ñu xam ne man def naa ko déglu bu baax a baax nga déglu mu ne ko damay xëy di gont ci ñetti mbir ci gaay yooyu mooy fexe fexe fexe ban jël alal min gayri xaqihi maanaam fexe ba nga jël alal yoo xam ne wóor na la alal ci lewu la waaye fexe ba njar la nga jël alal ji mu ne loolu dinaa ko fexe ci ñoom muy benn wa infaquhu fi gayri xaqihi dinaa fexe fexe ba seen alal ja ñu koy def boo xam ne ne yàlla subhanahu wa taala mbokk yi wala yëg leen ne gis nga képp kuy liggéey ci suñu nguur gii ñëw ñëwul defal alquran benn benn benn dayo bi wax ko ca kaw déedéet euh, wajaahidu bi nga def bu yàggul ci ci dajee bokki mag benn mbokk dañ ciy waxtaan mu am kilifa bu mu wax ci biir ñi jiite réew mi mune diw diwle neena bu bëggoon la coo def waye mom 5 millions rek la ci def waye après dina defaat ci souf ndax ñu def ci ko ndax day ba ci ko degu la ilaha illallah muhammadur rasulullah waye bu fekke dañ ko tuddé làmb ñi mëna ñëw publiquement jaxé ko téeméeri millions légui bu fekke dañ ko tuddé benn soirée ñi mëna wax ci radio ak télé joxnako 200 millions légui waye buñ ko tuddé ba ci alcorane ñi ma te ñu ne ñu jullit lañ laa ilaaha illallaah waaye beneen ba dama koy xiir ci fépp koo xam ne dafa war a dépenser pour yoonu yàlla ma xiir ko ba du fa dépenser te mu ne mu ne bu dee bu doon ne mbon ak teen la wala dafa am fu muy jógee mu ne jëf yii ma koy jëfloo maanaam mooy teen xool leen rek li may wax. ngeen teg ci seen bët yi ñoo xam ne ni muñ ko de ni muñ caméra yi teg leen ñu ne jël naa lii maa dimbali daara ji wala maa ko tabax di ñemewuñ ko loolu loolu bokkul ci nite hmm? ndax topp seytaane rek la seytaane rek hmm? suñ jiit yi de waron waron nañu roy ci Seydina Omar Seydina Omar radiyallahu anhu ndeysaan dafa dafa mos di doxantu benn guddi nee na mu romb benn kër mu dégg yaay ji wax doom yi ne Omar de amel na ma xam xale yaa ngay jooy rek ndeysaan Omar de mënu ko mu fëgg bunt bi dugg laaj ko waa yow lan la la Omar de te fekk moom xàmmewul Omar mu ne ko Omar moo jël suma jëkkër yóbbu ko fan yóbbu ko xare te bàyyiwu ma dépense bàyyiwu ko luñ lekk Omar nee na kàddu bi dafa mel ni fetal ci moom ñi matul a toog mu daw dem këram bu dee cee bu dee tey la nga dem mu dem ci frigo bi jën jën waas ko jël ndugg jël lépp jël ceeb ak diw ñëw taal ci biir kër gi ci guddi gi toog ba mu yor mu yee xale yi leexal leen ci loxoom ba nee na mu ne leen dama bëgg ngeen baal ma teel rek a tax xàq bi ma def laa ilaha illallah ah kii de mën na njiit mu ne bi yàlla dogalee mu faatu mu toog fukki at ak juróom ñu gis ko ne ko Omar lu yàlla def ak yow mu ne maa ngi doog pare ci yàlla li waxoon ne inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan maa ngi ciy a pare loolu laa dul réglé ak moom yàlla ngi digle maandu ak rafetal moo tax maandu bokk na ci ñu ñëpp ñu bokk réew mi nga jox ñiy bàyyi ñi loolu bokkul ci maandu nee président bu nekk danañ ko ko laaj Seydina Omar loolu la wax ñëpp war faa jàngee waaye du président rek képp koo xam ne njiit nga rek nga war ko bàyyi xel euh, alhamdulilahi rabbil alamin xam naa ba yaas jaar dafa mel ni euh, léegi tey euh, temps bi daal di ma dem ci beneen mooy ci ñun daara ji léegi la bëri léeg-léeg waaye daa bokk ci niteer ji mooy ne dañuy jàng ba xam wala boog ba xam zahir romb fi ki ñu jàngal téere yi ba téere yi jeex ñu dem fekk fële ab masamba booy boo xam ne xamul lu muy woote ñun ñu jox ko suñu bopp mu jël bakkan di xëcc rek di dimbali rek ñun ñu jàpp ne ñoo si ne luñ liggéey daw dem jox ko ko yére buñ baax bu am daw dem jox ko ko foog ngeen walaay yàlla dara. Sëriñ dafa am ni muy mel sëriñ dafa am moo di kanam waaye yow taaru bi da war a yeewu dafa xew ci jamono mu nekk lu doy waar te bu ëllëgee yow la am. والله سرنا الطالب من الخلو وهي طالب السكرين من الخلو وهي الشيطان من الدقل أغيو من الخلو فترك القرآن من إذ تبرع الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا شيء

du sax jege waaye fële comme ñëwagul lu neex waay wax maa la garanti nangam garanti ko fi bu ëllëgee yomal xiyaam da nga wax ah seen bi yar mu man xaw ma la de nga ne déet seen bi yow mu la xaw ma la ngeen commencé xuloo ci biir safara yàlla na waaw xuloo leen foofu bu baax lépp luñ defoon perte na neen na ngeen la waay ci bokk de ki nga sukk ci mu jàngal la basi ni ma ba nga mokkal alquran nga sukk ci ronam mu jàngal la xam-xam ba nga tafsir ah mbokk yi te kooku waaye mat na sëriñ de waay ah mat na sëriñ de waay waaye kooku mat na ku taxaw sa digganteeg yàlla subhanahu jalla wa ala waaye fàttalikul wa yawma yaadu zalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laytani ittaxastu maa rasuli sabila yaa waylataa laytani lam attaxis fulanan xalila fàttaliku ko de boo xam ne nit dina màcc baaraamam bi tax ne ak a neexoon li yonent bi indi woon ma jàpp ko ndi ke diw daf ma doon nax ndi diw daf ma doon réeral te fekk wees na de li ñu foog sëriñ du sëriñ li ñu foog yàlla du yàlla déedéet sëriñ da koy fekk ci yàlla yonent bi yàlla yonent bi hmm? nga ne ko man de xaw lu ñu demee ci yàlla xamuñu jàkk yoon ci mooy leen ñii ne defal ni defal nii kañ bokk dem loolu moo di sëriñ ah cee nit dana ma ci baaraam bi tax aka neexoon ma jàpp yonent bi waaye aka neexoon du jàpp diw bi suma sëriñ ndax réeral na ma nag waaye yëg leen ne seytaane nii ñu topp ëllëg yow ma la ko dafay def benn discours ci biir ci biir fan eh, eh, ci biir safara ñu jox ko benn minbar mu ne eh yéen suma taalibe yi kaay leen ñëpp ñëw mu ne yéen xam ngeen ne inna allaha waadakum waada alxaq wa waadtukum fa axlaftukum yéen nit ñi yéen a gënoon xam ne yàlla moo bind bind leen yàlla wax leen deer boo xam ne deeru dëgg la te mooy dekki du xamal ngeen ko ñu ne ko waaw waaw mu ne man may leen loolu amut ngeen gëmm wa ma kaana li aleykum min sultaan إلا أن دعوتكم فتجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم شيطان لي لبسكو وري ين قام ген في أول كدارا بدف لكم ين يلا مورن وخون جابو لين يلا تبرن كو بوكاري ما نيو ما دين بوكال لين يلا ген توكمو تينا فلا تلوموني ما كين يد بولن مسلم نكن كو نيك فو فو خام ديمون ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخية ما نبغى تيجي yéen mën leen ci mën dara nañ bokk ñu safara naawudu billah seytaane mii ñuy topp discours am ëllëg yawmal qiyaam loolu lay doon ñu may wax ne temps bi jeex na alhamdulilahi rabbil alamin ñu may ma cinq minutes ma joxe benn arme arme boobu arme boo xam ne arme yonent bi salawaatullahi alayhi pour ñu war a mën a jàkkaarloog seytaane war koo rey li ma wax ci seytaane ak li mu garaaw garaaw garaaw nee na am na arme boo xam ne yow boo ko téye boo ko dóoree benn yoon seytaane dee arme أربي بمو لا إله إلا الله محمد رسول الله مكين بربوب خجب شيطان السلام عليكم مولانا لي مو واخني بلا ما كوي فيري لي نك جانغال في يا خانا ني كومو دوي دا دوت لو جوي لو اي ام نافو ني تاول لو ام نافو ني تاول baarakallah xam naa xaal bi yéeg yàlla yàlla defal la jàmm ak sutura barki alquran nee na laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah jibril nee na mosuma wàccee baat boo xam ne gën naa tedd gën naa baax baatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah mbokk yi ngeen xam ne laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah asamaan ci la taxaw suuf ci laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah lay windeelu waye jant bi beuk bi ak guddi gi mu ne ngeen yeb ne ci la ilaha illa allah muhammadu rasulullah ci lay dox sama tour bi ngay xol la ilaha illallah ci lay dox kon ma bëgg a wax ne lépp bi aduna la ilaha illa allah waye la ilaha illa allah neena boko waxe ko waxee benn yoon yonente ne boo ko benn yoon te mu degg sa bir xol mu ne tëj nga buntu safara ray nga shaytan barakallah kon bu ñu dafa am fu ñuy wax euh, boobu rek ñu jeexal dafa am fu ñuy wax dijatul kan bi benn benn benn buur la woon yonent bi sallallahu alayhi ñaan mu tuub ndax doole gi mu amoon ak mbooloo mi mu amoon yàlla sànni ci xolam ko ab leer benn fajar mu ñëw ne day tuub si yonent bi kaala bi lalal ko mu jël kaala bi taf ci bët yi di jooy ne ko yonent bi damaa bëgg nga wax ma islam moo di lan ba mun a tuub dugg ci islam yonent bi ne ko islam mooy nga seede ne laa ilaha illa allah mu ne laa ilaha illa jooy yonent bi ko looy jooy mu ne ko dafa am bàkkaar bu ma def dama bëgg nga ñaanal ma sa borom bu waxé ma rey suma bop ma rey suma bop bu fe bu waxé ma joxe suma alal ma joxe suma alal mu ne ko lan la mu ne ko bima may nekk buur dama bewoon ba bañ sax mi wax ne diw goro diw la bu ne rey naa juróom-ñaar fi doomi jigéen yo xam yépp ma leen moomoon yépp ma rey leen bañ ñu sey ñu ne diw doomu diw la xam nga goro diw la légui lool la lool lool moo ma jaaxal yéen bi daal di lu muy wax te tek jibril wàcc ne rasulullah yàlla nee na nga wax diitul tarbi ne ko moom mooy na yàlla juróom benn fukki at ba mu waxee laa ilaha illallah la ko yàlla jéggal lépp lu mu defoon waaw tey moom mu rey juróom ñaar fukki nit te wax laa ilaha illallah naka lay xalaatee yàlla ñàkk koo jéggal ne ko yàlla jéggal na ko ci kàddu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bi mu wax kon ñun ñëpp lay wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mooy baat bi ragal yàlla mooy baat bi sell waaye mooy baat bi nga xam ne mooy def sa xol bi leer waaye mooy baat bi nga xam ne mooy def ci yow euh, mooy def ci yow maanaam ak njub mooy def ci yow ragal yàlla yonent bi boo nee laa ilaha illallah nga xëcc ko bu baax mu ne ñeenti junne kiiraay lay modd ci yow daa yàlla yi bu ñu dem ci yàlla laa ilaha illallah lay dem ci yàlla لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا محمد رسول الله وكل عام وانتم بخير ان اريد الى الاسلام ما استطعت وما توفيقي الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله